dangeen jëf mbokk internet yu wasaare célébrité dal leen ak jàmm boo nee weeru koor ne boo xam ne jàppante la dimbalante la maanaam si wàllu social bañ na fu mu toll nii sax man mi di kër moom koñ boo dem am na fa à partir de 17 ñëpp teg seen ay mana pour servir ñoo xam ne dañoo woor mais dog fekku leen seen kër. waaye dafa am keneen koo xam ne lañ ko xam maanaam si wàll social boo tuddee social il faut nga tudd ko muy kii di Wally Ballago Seck Wally Ballago Seck nag dafa ne mëninam comme ni ñu koy waxee image bii ngeen di gis Wally Ballago Seck dafa jënd si bitig bii de lu tolloog six ceeb di ko séddale si entre koñu Malika ba Kër Massar képp koo xam ne yaa ngi diggante boobu rek ceeb bi incha dañ ko teg sa loxo mu doon loo xam ne lu rafet la Wally Ballago Seck c'est pas la première fois muy def lii gis nañ ko fi à chaque fois muy def ay social yoo xam ne peut-être lii moo feeñ mais yu bari bari bari gis ñu ko mbokk internet ñu bàyyi leen ngeen dund vidéo bi de. maa kontaan. waaw di nga gën a kontaan macha allah. ndax sa xarit li mu defati. sama xarit def. Mhm. jox sëriñ xaalis bëri na ko demal nga fay. waaw borom lingeer xaritam. mu ko demal nga fay ceeb bi eh. six tonnes ceeb. la ma wàññi ko. Eh. moom Malika. Eh. Kër Massar. ñëpp koo xamante ni. sama diggante ak yow neex na ko. waxal ma ko. waxtaan na. la seet nag kenn du yow. waaw suñu bàq. Waly dafay kenn si man. ñu ngi fii di jël ceeb bi ah. Fary maa ngi laqatu Fary maa ngi laqatu borom Linguère.